Kaba bu gisee acte bii xew benn gendarme mën a teew teewee benn mbir ñëw ne lii laa gis gendarme boobu daf ko war a wan na Sidiki Kaba ne ko yow étant ministre de l'intérieur maa la ëpp jom étant ka doon sama kilifa ci gendarmerie ci jamonoy Macky Sall maa ko ëpp jom ka toppoon ci man ka toppaat ka toppaat ka toppaat ñëpp maa leen gën jom kon ku mel ni gendarme bi taxaw lii bañ loolu dafa am lu muy reflété muy régime bi ñu yor nekkuñu jël alalu réew mi di ci jënd gendarme yi wala di leen yokkal ay privilège ne leen defal leen ma nàngam ak nangam parce que loolu ku ko bëggoon a def xam nga noo koy defee ah. Mm. gendarme boo xam ne simple euh, yeggul ci ci ci ci grade capitaine wala nangam nangam nga promouvoir ko mu defal la ñun xam nañ euh, kaawu aji Sarr ñi ci laaloon après nan lañ mel ñëpp lañu yokkal ay grade. d'accord tout mboolem ku ci ku ci ku ci kii woon damaa gis dañ laa dañ laa dañ laa yokkal grade. gën laa aj quoi dañ laa aj. nga jàpp ne foofu moom euh, démocratie dund fa. waaye dama ne ñii ñii ñii maanaam ñii wa maanaam bu ñuy wax ci wàllu démocratie Sidiki Kaba waratut a wax xam lu tax waratut a wax ma yeneen ministre yi nga xam ne du ñu ay droit de l'homme sax maanaam awma ci problème quoi mi ngi mel ni rek Seydi Gassama ñu fal ko tey ci gouvernement bi tey ministre nangam ak nangam Sidiki Kaba euh, Seydi Gassama bàyyi la mu doon wax. xam nga tey boo doon wax réew mi droit de l'homme Sidiki Kaba ngay wax Seydi Gassama. ak Alioune Tine ak euh, Birahim sekk ak ñooñu mu ngi mel ni tey ñu faloon Birahim sekk mu ne pat gis nga moo tax gis nga fan la ñuy xam les grands hommes nit ñu baax ñi ñu màgg ñi fan lañ leen di xam saa yu ñu leen joxee ay cër teelee na ba ñu mu mu mu loola cër boobu du tee ñu wax liy dëgg loolu mooy nit mooy tey li nga xam ne tey moom la ñu def en tout cas da ngay gis ne suñu démocratie moo ci màgg suñu justice lay wane ne dafa moom boppam. Hmm. kenn lañ fi téyewut téye la nii ci ay élection wala nangam ak nangam buñ ci doon xool est-ce que dana neex ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ay ay nit yoo xam ne ñoom ñoo jiite. Hmm. maanaam kenn ku laaloon ci Macky Sall taxaw fii di joxe leçon de morale man xam nga ñan laa may moo tax dama naan. ci coalition bi boo xoolee seen coalition bi nga xam ne moom la ñuy wax l'intercoalition maanaam c'est même contre nature et contre la nature même sax wala contre l'environnement yow kii ñi yaa ngi wax ne da ngaa bëgg haute cour de justice comme Bougane ni mu koy waxee. Hmm. mais Macky Sall mi nga bokkal intercoalition ñoom bëgguñu haute cour de justice. parce que bu ñu ko doon def def ko ci kaso quatorzième législature. kon dafa am incohérence côté boobu kon. non non incohérence totale. xanaa moom moo tax ma nee naa Thierno Alassane Sall su yàqalul Abdou mbay parce que ay bii contre son camp laa gis tey mi ngi taxaw naan procès bi ñu ngi ko def huis clos mais loolu dëgg ay fen la Thierno Alassane Sall xamuñ ko ci woon ci ay fen. huis clos yow danañ la bàyyi nga dugg danañ bàyyi journaliste ñu dugg te pourtant tey moo ko wax ñëw naan dañoo tëj marché bi projet public xam nga nit nit da ngay wax dëgg soo bëggee ñu lay naw jubbu bi nga bi nga bi nga bi nga bi la fal bul ko bàyyi dafa am ku mel ni ci Thierno Alassane Sall soo ko masaan tudd wala nga tudd Ousmane Sonko wala Boubacar Camara li ñuy wax mooy dañoo jub wala même Thierno Bocoum mm-hmm. da ngay dégg ñu ne dañoo jub Mhm. mais bu demee ba mën a dugg ci bêtises yooyu di wax lu dul dëgg. Mm. loolu nag ceer xàmmeetuma la. d'accord ku ma xam-xam ne damaa yàgg toog di la di la défendre mais xàmmeetuma la te jàppoon naa ne seen coalition bi moo ko Abdou mbay mën naa am dara man loolu mooy li ma jàpp parce que damay jàpp ne bu ñu weesoo ñoom ñoo gën a cohérent mm. bu dee cohérent rek pour man ñoom ñoo gën a cohérent mais sorteem yi noonu la defoon nag awale ba ñu xañ leen lu bari na génn ci yooyu. d'accord nay wax dëgg quoi. d'accord maa ngi lay gërëm bu baax xam naa ne campagne bi moom fi mu ne élite patriotique ñu ngi ci terrain bi ak Cheikh Bara Ndiaye Mara Niass karang karang ak yu mel ci des dama koy bàyyi ak Ajara Laay. waaw fa laa jëm nii maa ngi lay gërëm bu baax dem ci campagne bi. Hmm. dama ko dagg xam nga rek contrat moom. contrat la. contrat dañ koy respecté <laughs> donc ñu ngi euh, baax a baax a baax. nag bële di ñëw damay dem Touba ah Touba loolu laa bëgg non damaa war a campagne. Touba moom il faut moo topp ah. élite patriotique parce que sama ah, dëgg la quand même. Touba ah. moom maa koy ñaan waa seen. Touba moom sëñ Cheikh Thioro mi ngi def liggéey bu am solo. gars yi ñu ngi fatt fépp. boo génnee ci terrain bi ngay xam ne. d' accord xam naa nga xam ne gars yi ñoo ñoo ñoo yay <laughs> ci ruq bi mais mais Barth yéen leen tardé loon mais suba dinañ commencé. Ah. mais yow lii kay buzz médiatique bu kii lañ. dëkk bi dana yëngu de ndax parce que ñoom ñu ngi bëgg a commencé te seen t-shirt yëpp yéen a ko lakk. te eh, foofu tamit damay wax ne waxuñu dëgg seen t-shirt yow Mouhamed ñu ngi leen koy tuumaal jox naa la t-shirt yi wan ma t-shirt yi. <laughs> t-shirt taxawu Dakar ya. taxawu Sénégal ya xalifa commandé woon. ci élection yi lu ma rek fournisseur u xalifa maanaam euh, ki defaral xalifa fournisseur am laa xam lu leer wax t-shirt yooyu du t-shirtu du tisetu Sénégal bi ñu bokk tisetu taxawu dakaar la élection yi comme xalifa tojut fenn munuñ liñ commandé yoon yëpp mënuñ koo jox gisuñ ni ñu leen ko solal solal tiset yaa fa nekk ba nëgëni te nañ jënd tiset yi lakk nga xool te buñ la Mouhamed tegaloon affaire bi boo ko visionné bu baax di nga xam ne lii taxawu Sénégal la du taxawu dakaar du taxawu Dakar du taxawu Sénégal la du du du Sénégal bi ñu bokk. moo du sàmm sa kàddu laa bëgg a wax quoi voilà parce que sàmm sa kàddu Barthélemy Diaz au lieu mu demee taxawu Dakar est-ce que xam nga Barthélemy Diaz moom moo nekk patron Khalifa léegi demawul taxawu Dakar de demawul taxawu Sénégal de hmm. lu lu mu demee kon ci ban Sénégal bi ñu bokk maanaam dakaaram bi ñu bokk bi mu defoon la soppale Sénégal bi ñu bokk bi Khalifa demee di waxtaan ak waa Pire ak Déthié booba Barth ca la dem waxtaane ji ak Bougane Anta Babacar Pape Djibril Fall moo tax nga gis seen ñaari seen ñaari jëmm yi ci benn foto tisetu Khalifa Sall yàlla lii du tisetu sàmm sa kàddu leer laa lay wax d'accord voilà muy noonu gis nga bi xalifa demee di waxtaane ji ak sëñ Moustapha si maam waxtaan ak waa piir ak waa PRP barta ngay waxtaanee ak ñi maanaam ñee maanaam booy xool ñoom lañ njëkk a war maanaam xalifa ci boppam soo ko mënee tudd su at bart war ko wala mu wor ñële mais lu mën a am mooy wor am na te boo xoolee ni piir doxale ci campagne bi campagne bu piir di campagne mm. ak bum campagne ut xam nga ne neex naa xàmme de piir rek te gisoo leen ñu verte waa piir quand même dafa mel ni dañu xaw a non dafa am lu leen naqari parce que loolu loolu rafetul kenn gisul yow bi ngay waxtaane ji ak xalifa danga nga jàppoon ne xalifa kilifa Barth li mi ngay waxtaanal ndekete xalifa suq mi léegi moom ngay waxtaana xam nga kon c'est différent mais loolu kon euh, grand problème la non grand problème la Déthié Fall loolu bokk na ci li ko naqari mais yooyu bu amee ci politique da ngay teel a bàyyi daal ne lii la maanaam moo tax timing bi bi Déthié def mu baaxul te bu ma doon moom du ma rek jóg rek daal di ñëw ànd ak Ousmane Sonko damay wax loolu ba pare daal di toog motif la comme ni pire def nii hmm. man d'accord naa ci toog rek seleng lu daal non parce que yow ñi la waroon a voteel duñ gis seen bopp ci lii yow foo xam ne benn waay boo xam ne violence képp la am bu débat bi génnee violence ak saagay ndey pare na ci lu Dias lan la mën a wax lu nit mën a def fi mu nii li am rek la doon joxe woor ak làmmiñ wu ñaaw ñun nag xam nga lu ñu am dem référentiel bi avec nos huit pôles Sénégal day développé dañ koy teg te bu soom ko di wax li ci neex mooy gis nga ni nit ñi di xerawloo nga xam ne léegi nit ñi dañuy ñëw di déglu ji message parce que dafa am nag mag ñu fi jaar nañ leen ko sante ah. d'accord ku mel ni sëñ Sambay sëñ Cheikh tiyaan si almaktum surtout da ngay xam ne ñu bokk nañ ci ñi inspiré Ousmane sonk tey ni nit ñi doon def bu ñu daan déglu sëñ Cheikh xam nga sëñ Cheikh nekkul ne Tidiane rek wala Moustar Sidi rek ñoo koy déglu man depuis 2008 mënoo maa yóbbu ci gàmm. du ma dem fenn naa toog jàppaarloo kii bi jàpp murs mursit wala ma jàpp 2S temps boobu moo ko daan njëkk di teg dans un premier temps. Hmm. après mursit di déglu li muy wax. waxuma rek côté aspect diine bi mais ni mu lay xamalee àdduna nga xam ne da ngay ubbiku da ngay kii tey Trump boobu dangay xam ne ci yoon woowu la Ousmane Sonko nekk. moo tax suñu kilifa yi dañ fi jaar pour ñu roy leen. Hmm. dëgg la aspect baatin bi baatin la mais dañ leen mel ni ñoom nag mën naa jafe mais ku leen roy bu yàggee nga tege ci yoon wi. Hmm. tey noonu nga ko waxee sañ seex Tidiane si almaktum mais sëñ Touba bi muy wax ak nit ñi ci 1926 ci bi mu bëggee defar jumaa ji nit ñi tubaab bi bëggoon ci def alalam mais sañ bi dafa lànk bi mu lànkee nit ñi comprendre uñ mu wax leen li xew nit ñi maam Thierno daanu joxe 128000 nit ñi tamit muri di joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett biñ ko dajalee mu doon lu bari mu ne lu ngeen di defati defee leen ko nii. mais loolu mooy cagnotte bii nga gis nii. kon loolu lépp fii Sénégal la nañu pare pour roy suñu mag ñi dëkk bi day dox de lu leer laa la wax. incha allah incha allah. donc euh, ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Saa Wolof di joxe dig daje ci beneen jotaay ko xeltu altine lay doon léegi-léegi ajaratu Lay Maxtaar dana ñëw euh, yeggale jotaay bi de vingt et une heures jusqu'à vingt-deux heures allah mu gungewaat leen ci li nga xam moom moo di actualité ñu ngi gërëm Mohamed